ministère de l'éducation nationale dafa daal di génne ab communiqué di xamle ni vacances yu Pâques yi dinañ ko teel a jël ndax nag dina door le 27 ba le 12 avril di ñëw li ko waxal nag du leen lu dul procès bi dox ci diggante kii di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang te wax ko amal le 30 mars bii di ñëw loolu rek tax mu daal di boobu boobule décision ndax nag ku ne gis na ni tension politique bi fi mu toll saa si tembe si réew mi ak affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye bi xamante ni si dañ ko daal di politiser ba ñenn ñi sax du ci dugal lu ci xamante ni si bokk ci kii di Moustapha Diagne directeur de la communication et de la formation au ministère de l'éducation nationale moo ko joxe yooyu la explication ngir rek préserver école yi loolu rek tax cours yi dinañ ko teel a arrêté balaa le 30 mars bi di ñëw ministère de l'éducation nationale di xam ne ne kaaraange élèves yi ak enseignants yi ak personnel yi nekk ci école yi loolee bokk na ci li ko gën a soxal ba tax mu daal di jël boobule décision dinañ lu ci ruusani rek dinañ leen ko toppala fii ci Dakar Buzz alhamdulillahi alkarim Nabi Worldwide Shipping moo leen di yóbbul wala indil seeni bagages ak seeni marchandises chaque semaine entre Sénégal les États-Unis la Chine la France Dubaï wala Turquie yéen a xam da ngeen fay jëlee bagages wala da ngeen fay yóbbu bagaas waaye li gën a wóor mooy kuy jëlee bagages ci gox yooyu na nga jokkoo ak Nabi Worldwide Shipping fépp ci biir États-Unis New York Ohio Californie Atlanta lu ko kilo ba mille tonnes fret aérien bi six dollars pound rek la mooy douze dollars le kilo c'est le prix le plus bas du marché su dee Chine am nañu entrepôt Guangzhou Shenzhen ak Yiwu am nañu fret aérien ak conteneur les prix les plus bas du marché lañ leen indil su dee France ñi ngi Taverny côté kër Serigne Touba bi bu dee Ndakaaru nag ñi ngi fii Liberté 6 extension suwetu Walfadjri am nañu agence Bamako Nouakchott Banjul Abidjan te laaj ma li gën a neex bagage yegsee

wala nga yónnee ñu mail info arobase nabi point africa amri muhajiran lima ladayka